ahlan bikum njiiti réew mi Macky Sall yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci askan wi ci njeextalu at mi ni ki samedi bi weesu la Soleil yéene kaay ne wax na ci fànn yu bari waaye bokk na la ca gën a fës dundinu askan wi Direct News na ko ak koom-koomu réew mi enquête yéene kaay na ko ak chantier li mu bëgg a liggéey ci réew mi 2023 loolu it wax na ko exclusif yéene kaay na ko def na tamit bilan bu baax maanaam li mu jot a liggéey ci réew mi Vox Populi na ko facaa yokku ak a liggéeyaat ci réew mi sociale njiit réew mi nee na ñeenti téeméer ak juróom fukki milliards la ci fas yéene dugal 2023 info na leen faa ci yokkal ay digg xepp te bëri lool Macky def na ko danaa def lii faay def laa faa ca yokk lële infrastructure chantier suqali wér gi yaram école yi mbay mi digg yu dut xaj du jeex lam digoon askan wi nag mooy ne troisième mandat du ma ko mës a laaj loolu moom waxut ci de fa koo tëb turbine yéene kaay ne waaye ku dégg na waxee fa ngay xam ne Macky ma ngay yëglu ne candidat lay nekk 2024 ndax wax fa laaj déggin ne waaye li ci réew mi war koo lijjanti wàllu koom-koom gi dundi ni askan wi wàllu politique wàllu yoon yorin wu sell ña seen xam-xam màcc ci wàll wi ña ngay wax Macky fa mu war a tàmbalee ci lijjanti ko léeg si ko yéen e kaay na njiit réew Macky moom ma ngay avertir ak a tëkku yow seetal fa wax ne ku yaakaar na yaa gën a fort askan wi fa ngay nax sa bopp te lépp lu ma mën danaa ko def ba Sénégal nekk ci dal jàmm booloo nekk benn ak suqaliku leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ji nga xam ne ci la njiit réew Macky Sall doon yëkkati kàddoom concertu bool tëgg bool gi Ousmane Sonko woote woon é réew mi fa doon riir laa wax foo tollu dégg téll téll gi kacax-kacax ràcc-ràcc ji mel ni tulleeg màlle laas yéene kaay na wax dëgg yàlla Ousmane Sonko li mu woote casserole bi tëggam bool yi askanu Sénégal fañ ko wuy si ñu bari dégluwuñ sax discours njiit réew Macky Sall fa ñoo génn ci mbedd yi vox populi ne réew mi fa doon riir ba ca wetu pale njiit réew Macky Sall di korno nit ñi di tëgg info yéene kaay na ko Ndakaaru ñoo jël raw gàddu ga racax-racax cacax cacax cacax cacax rek nga doon dégg bés bi yéene kaay na gaay kay fañ doon concert show si njiiti réew mi fa doon dig askan wi la ëpp ca askan wa fañ ko doon tànqal ak tëggam bool mooy ne ñun dégluwuñ la réew mi yéene kaay ne Sonko kay la mu bëggoon xam na ko te mooy am na ndam ci tëggam bool mi mu xoote woon léeg si ko yéene kaay ne waaye moom Ousmane Sonko Khalifa Sall Malick Gakou ak ñeneen ñi ni mel tëggam bool mi gisuñ leen ci fa ñoo réer mër de moom Ousmane Sonko nag ca exclusif yéene kaay ma ngay gërëm askanu Sénégal ci tëggam bool ne leen wane ngeen ne que yéen yéenay askan jii ñi ñuy jaay doole di nga xam ne fa ñuy a yi bëri gim bëri fa jéggi dayoo gars daal ci politique lañ nekk ku àndut ñoom ñu jàpp tëj kaso Déthié Fall na ko ñañ war a jàpp nag moo ñu def ay tooxi ci yenn ci kilifay réew mi te kenn du leen def dara waaye at mi di ñëw kumba xam nday kumba xamul nday fay jeex conc bi njiit réew Macky waxoon ne moom lay teg ñenn ñi ngir ñu bañ leen tëj kaso loolu fay dakk Barthélemy Diaz ci Vox Populi ne man génn naa tëgg ay bool ndax fa doyal ci état yëpp ngeen boole seen doole ngeen wote jëlee fi Macky Sall njiiti réew mi ak ñi mu àndal si ko yéen kaay na ko yow ku dégg li nga wax mooy ne fa ngaa bëgg a nekk candidat 2024 bëgg a nekk candidat fay laaj réew mi comme ñëpp info yéen kaay di ñu xamal na Pape Djibril Fall ginnaaw toroxal agression bi ko askan wi defoon ca place de la nation keroog toogaanu ñaxtu ba ci yuuxoo yu métti ko yuuxoo yéen kaay bi na fa amal jano taskatu xibaar yi soo génnaan wala nga wax askan wi di la tàccu soo demee ba génn askan wi di la yuuxoo fa ngaa war a xoolaat sa bopp ak sa doxalin ña war a xoolaat seen doxalin dëgg mooy responsable APR ya nekk Kaolack ndangaan waxuma ko Ousmane Noël Dieng moo ko wax nee na duñ tus fa ñu yàqal Macky Sall di nax askanu Kaolack ba tax l'évidence yéen kaay na njiital MJK Ousmane Noël Dieng ma ngay sàkku del siwaatu Diène ba Sarr dugg na fa attaqué Pape Demba bi tey ak ñeneen ñi ni mel leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na njiitare Macky Sall na moytu ay jege ñaaleem yi nga xam ne fañ koy digal naan ko laajal troisième mandat Amsatou Sow Sidibé nee na ñooñu seen intérêt moo leen tax di wax kon Macky bu mu leen déglu fañ ko nar a dugal ci aw musiba ma waxee ci réew mi yéen kaay Bougane Gueye Dany feelu ko ci tribune yéen kaay ne gis nga sénégalais duñ ci boole sax wax njiitiram Macky Sall daal ñetteelu mandat moom bu ko laajee sénégalais ñoo koy fekk ca palais ba jëlee ko fa ndax yoon fa ko koo tere ba pare moom ci boppam moo wax ñëpp di dégg ne def naa juróom-ñaari a dem aw ko mbuqi ba mu jaaxaan na ngalañ réew mi yéene kaay na ndaw jël bu leer sunu làmb yéene kaay ne booy ñaa fa gañ a Balla Gaye 2 ci lu matu sax ñaari minute fa koo lalal ndëgg sërëx xàcc di dóor Balla Gaye waaf jàpp tànk booy ñaa ba mooy ca booy ñaa siggi cëppi-cëppi jàpp ca ngembu la fàqat ko Balla bëgg a rëpp mujj ëlbatiku ne yooyaay ma ngay jóg rocceeku booy ñaa na ko kaay doo dem fa koo plaqué jàpp tànk ba boole ko mbagg ma puus tànk càmmoñu Balla ba leemu mu mujj na ngalañ jaaxaan booy ñaa na ko maa ngi jéggalu de grand surtout li doon wax laata combat bi Balla Gaye 2 tuuti fa joo jooyu métti métti les ko yéen a kaay ñu ko xamal ba pare na Boy Niang fa gàccal toroxal Balla Gaye ni mu ko def fa ñaaw waaye te léegi Boy Niang dugg na ci VIP yi bés bi yéen a kaay na neexute dégg waaye Balla Gaye jeexal na tàkk Balla mi ñu xamoon jàpp tànk Boy Niang mënu cee def dara su yeboo mu dem noppalu ji lu ko mooy gars yi ko fi rey de fañ koy mbuqi rek libération moom di ñu xamal ne benn waay bu ñu ray sànni ko ca mbalit ma ca tiwaawoon takk der yi def accident xam ku ca faatu turbine yéen a kaay ñu ko xamal lam ñu xamal moom journaliste bi di Ibrahima Lissa Faye ci le mandat a kaay mooy ne Pape Alé Niang sonn na ba ca kanam yàlla bakkanam ma nga ca xottu gerte ma nga ca diggante dund ak dee médecin ya ko yor sax fa ñoo tiit ci moom jaaxle ndax bàyyi lekkam nga moo ko bëgg a lor ba tax ma ngay sàkku ci nguur gi nañ ko bàyyi mu génn kaso balaa làmbaayee ñaaw ah